waxuñu leen dara ñu ngi fa toog rek ñu téye leen waaw donc loolu lu ñuy ñaawlu la. d'accord mu nekk xibaar bu ñuy euh, topp. war ko war cee di ko bàyyi xel bu baax a baax fii ak ci eh, yeneen i jotaayu xibaar ñuy xeel ba xam nan lay eh, mujjee ba tey ci wàllu. wax ci leneen jëm ci waa Y'en a marre Aliou Sané kilifa ak eh, yeneen juróom-benn ci seen i ñoñ ñoom nag bi ña nga fanaan ci commissariat bu jëppal dem leneen jàpp daal leen yóbbu gannaaw bi nga xamante ne dañoo demoon ca makkaanu orange bëggoon fa amal ñaxtu bëggoon a déposé kon lettre ngeen nag wane seen nag ñàkk ànd ci ni orange yi